comme ñoom cour suprême taxaw na ñoom dañ décision dañ koy attéwaat nan demaat ci at. Euh, Clédor Sène mooy ki nga xamante ne euh, ràññee nañu ko bu baax a baax a baax ci militantisme euh, walla ci activisme plutôt ak lépp li nga xamante ne ñeel na doomu sénégalais yi moom nag yàgg na àddu. Euh, la dernière fois bi nga xamante ne juge Sabassi fay joxe ne lii di verdict il m'avait dit que bett ko woon euh, xam naa question bi ba nuyoo ba pare mooy est-ce que décision tey bi bett na la euh, Clédor maa ngi lay nuyu bu baax a baax. salaamaaleykum maa ngi lay fay di nuyu ñuy seetaan 313 digital yëpp. Mhm. li ma li ma lay laaj rek mooy li ma la laajoon bee paase da ne ma woon décision wu Sabassi bi bettu la. parce que mhm. droit rek la war a wax. Mhm. mais tey est-ce que li xew cour suprême te xam naa ne yow tu fais exposé boo waxee ba pare lu bëri lu lëmtoon ci kanamu nit ñi dina euh, dina leer. waaye mhm. est-ce lu tey lii bett na la. waaw bett na ma trop parce que euh, cour suprême. Euh, mënuñ àtte dans le fond déjà kon mënuñ. remettre en cause acte bu juge euh, euh, nu mu tuddati euh, Ziguinchor bi acte woon tribunal de grande instance mhm. te ci matière électorale la ñu nekk mhm. li tax ñu may juge juge électoral bu acte acte bi ñu dogal ko ca saasi pour bañ a gàllankoor wala lor ñi nga xam ne ñoom ñoo sàkku ñu acte leen ci loolu parce que dafay am ay délais yu courir comme parrainage yi nga xam ne le onze day jeex Mhm. wala comme inscrit inscrit ci liste ci ñàkk liste euh, euh, nekk candidat ak bañ a nekk candidat loolu lu ñu war a at ci saa la te dogal bu ñuy appliqué ci saa lay doon nga xam ne du am benn gàllankoor loolu la ñu may juge électoral bi mhm. kon tey jii lan moo ma bett mooy le fait que cour suprême dañu jël ay responsabilité parce que moom dafa waroon atte atte bi mhm. parce que li li fi mu waroon a yem wax na ko ndax juge Sabassy Faye habilité na pour acte dossier bi ñoom nee leen waaw recours bi agent judiciaire de l'État def est-ce que waroon na ko def ñoom nee nañu déedéet waru ko waruñu ko woon sax parce que décision boobu décision bu jaar yoon la kon loolu li ñu ci waroon toftal mooy neenal euh, euh, euh, recours boobu neenal recours boobu nag mooy mooy mooy confirmer dogal bi ñu jëloon Ziguinchor kon loolu moo moo doon moo waroon nekk liy doon yoon parce que bu ngeen xoolee débat yi ni mu déroulé ñëpp loolu lañ doon seen mm-hmm. euh, am na sax kenn ci ñoom euh, ndaw si sant Diallo mm-hmm. boo xam ne bi ñuy délibéré moom dafa bañ a engagé responsabilité moom génn na ci te signé wu ko te mm-hmm. euh, communiqué donc léegi loolu vraiment ñu mu tuddati dellu gannaaw la renvoyé ci beneen juridiction parce que loolu benn texte prévoiru mhm. amul benn texte bu prévoir ni cour suprême daf ko war a renvoyé ci beneen tribunal léegi nag ñu ngi tugutu boo xam ne musul am parce que cour suprême musut a def loolu mhm. day àtte joxe dogal kon tey jii àttewul joxewul dogal dafa ne nañ dem ci beneen tribunal mu àttewaat tribunal àtte na ko ba pare mooy grand tribunal d'instance bu Ziguinchor kon lii moom kenn xamul lan la berte na ma trop trop trop te du lii lañ doon séntu ci justice Sénégal ñëpp amoon nañu yaakaar ne. Mhm. Euh, justice Sénégal dana dana dana dana dana am rôle bu rafet tey. Mhm. Hmm. ah mu jël mbir mi ne tribunal bu Dakar. waaw moo ko war a àtte loolu ban ban gis-gis la ci yow. waaw loolu mooy mooy daw responsabilité bi ma wax léegi rek parce que loolu mos ko am te waru ko am te bokkul ci seen sañ-sañ ñoom nekkul ci seen ay texte waruñu def loolu. Euh, te loolu du du du lu normal. Mhm. léegi nag euh, fixé yi ñu daf ñu xool fu wane nañ ay gëtam. waaye ba tey jii nii nañ mën nañ jàpp ni Ousmane Sonko mu ngi ci liste électorale yi parce que dogal di euh, di di di di di ñu kase sax di di jógee loolu terewu ko recouvrer tous ses parce que kenn notifié wu ko ñu génnee nañ rek ci liste électorale bi loolu feeñ na ci àtte tey bi nee nañu notifié bu ñu ko nàkk notifié euh, génne bi ko génnee ci liste électorale bi loolu du yoon. Mhm. loolu day tax euh, génne boobu jaarul yoon. waaw génne boobu jaarul yoon ba pare léegi nga koy yóbbu beneen tribunal pour attewaat loolu doo wax doo doo wax de droit. loolu loolu moo moo fi am tey te loolu euh, seen fukki en mhm. mais gis nañu aussi ñu fixé waat loolee nga xamante ne moo di Ousmane Sonko ak Mame Mbaye seen procès bi pour le 23. Euh, enchaînement yi ñuy def ci procès yi nga xamante ne moo concerné Ousmane Sonko loolu it euh, ban jàngat nga ci am allo oh, loolu moo nekkoon euh, la réaction de kooku li ñuy woowee Clédor Sène Euh, déggu ngeen li mu wax moom tamit ci même sillage bi rek la euh, addu muy li cour suprême def du yoon mais moom it euh, nee na ba tey Ousmane Sonko candidat am mën nu jàpp ne mu ngi ci biir liste yi ba léegi ñu jël keneen. en attendant les événements 77 227 12 12 77 2